xam nga Farba xaritu ñëpp mais Farba dafa am benn dafa am benn défaut mooy da xool na yow rek da nga jàppaloo président kaay ma noonu la man ma wax ne ko jaru ko jàppale président fexeel ñu jàppale ko luy jar noonu jaru ko parce que qu'est-ce qui se passe il que man dama promettre woon président ne ko dama lay jàppale te jàppale ma ko dëgg la waaye ki may jàppale day ñëw ci man ma jàppale dama ko wax ak président ne ko wool diw nga wax ko mu ñëw ma jàppale ko mais kooku ñëwul quest que je vais faire man maay daw ci gën a am ne ko dama lay jàppale jamais. xam nga yow xaaral xaaral xaaral xaaral loolu la non non non bàyyi mu terminé ko loolu mooy problème bi loolu lay problème bi li ma wax mooy dangaa wax président loo deful ma ne ko non la président wax lañ deful lam leen wax ne leen dem leen seeti sëriñ ngeen jàpp xam nga il faut nga xam la dafa am loo xam ne nii ñoom dañ ko war a xam man dama jàpp ne amul kenn ku ma gën a légitime tey ci dëkk bi parce que gis nga euh, sympathie bi ma am kaw la am naa ko Touba Bawol am naa ko Louga te mën naa ne bu doon tey li ma jaral Kaolack ma ko jaral Touba ma am lu ëpp 64 pour cent foofu man xam naa ko ndax lan moo fay def nit mooy yaakaar samay mbokk rekk fa nekk man damaa bokk ak waa kër sëñ Touba yépp sama maam yi ñi jaxat lañ sant ñi jóob lañ sant ñi loolu lañ sant ñi mbàkk lañ sant ñëpp amul genn kër convoy beneen mooy képp ku fa nekk opérateur économique da ngay jàpp ne marché Touba san papa ci ñëpp a njëkk la amul kenn ku fa nekk ci marché ba te sama papa wala sa papa wala sa nangam mosuñu seq teraanga man tamit ma seq koog ñoom damay wax gars yi ne leen man jaay naa soble jaay naa ceeb jaay naa électronique jaay naa lépp jaay naa cosmétique jaay naa ay mees jaay naa lépp jaay naa daal jaay naa lépp lu ne am naa ci. booy booy rappelé légitimité. lan nga ci lan nga bëgg a dem. boo naan amul kenn ku ne légitimité xam nga lu tax may dem légitimité. Hmm. ñoom bu ñu bëggee ma jàppale leen. ñoom bu ñu bëggee ma jàppale leen dañ koy dox. waaye dafa am ñoo xam ne xam nga lu ñu jàpp homme d'affaires la amul intérêt boo ànd ak état nañ ko xeextal dana daw ñëw ci man. Hmm. loolu moo leen di mar la xam nga tey bu fekkoon dama nekk politique yépp damay croiser sama sama bara ñuy daw di daw di daw man ñii ñuy daw di jox ay kii kenn ëpp ci légitimité Kaolack mooy dëkk bi gën a compliqué Sénégal moo gën a compliqué Sénégal soo déggee ma ne la Touba laa su ma demoon Touba def ko fa fa laay ëpp escort ndax damaa xam Kaolack ni mu compliqué. Kaolack dafa compliqué ci ci xeet ci politique ci tiraillement ci xalaat dafa metti